léegi imam euh, ñi jëm na tamit ci li nga xam ne mooy wàllum tabaski passé nañu korité te gis nañu ne tabaski yi bari na comme mel ni ñaari lislaam moo fi am ñaari korité mooy am ñaari tabaski mooy am ak yooyu lan ngeen di mën a def ba nga xam ne bu korité jotee wala tabaski rek ñu daal di koy defandoo benn. waaw loolu xam nga loolu tam xaw na fi yàgg depuis depuis Serigne si man maa ngi fàttali depuis mu nekkee xale yi say 4 heures matin ñu ne Serigne bi nee na lii sama li mooy lan mooy ñàkk d'accord. ci tegtal yi maanaam critère yi nga xam ni moom la ñuy basé wu pour wax ndax weer bi commencé na ak euh, ndax euh, jeex na tant que loolu wute day am boo ci doolee nag tarixa yi ku nekk sëriñ bi nga wóolu ñu dolli ci ne ñii ibaadu lañ ñii salafit lañ ñii arabi saudi la ñuy topp ñii ñeneen la ñuy topp loolu yëpp soo ko ci indee mu gën a compliqué mais kon tant taxawuñu taxaw ñu réglé hmm, yan critère la ñuy utiliser dina compliqué mais man par exemple en tant que chercheur li ma gis ne tey calcul astronomique xam-xam boobu buñ ko ci dugalee bu baax a baax euh, mën na waxuma la sax wàññi wuute bi mais mën na ko sax régler mu nekk un problème purement scientifique te man gis naa ni affaire weer c'est un problème scientifique c'est pas un problème de mystique wala ay ki ma wóolu ki ma wóoluwul problème de cycle boo xam ni déterminé nañ ko xam ko soo ma su ma waxee loolu ñu naan ma non mais euh, gis bi ma ne leen heure julli fi mu nekk nii euh, amul kenn kuy taxaw ci mbedd mi di natt sa taqandeer tàkku sax mais c'est des heures c'est un calendrier perpétuel boo demee jàkk boo dem tey ci àddina bi dañuy defa heure julli yëpp pendant un mois pendant toute l'année calcul astronomique la donc euh, nañu appliquer calcul astronomique bi ñu ko appliquer au soleil ñu appliquer la lune ma def fii benn sermon ma ne les musulmans font confiance au cycle du soleil ils ne font pas confiance au cycle de la lune contradiction c'est le déclin intellectuel c'est l'obscurantisme